ولها وتم عيبنا وتب بنا وبها في خولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu déggee bayit yooyu nga xam ne sëriñ Modou Rokhaya Gassama moom sëriñ Abdul Xaadir Gassama Jeylaani yëkkati na ko ngir waajal bis bu màgg di bis boo xam ne bisub lislaam la waaye bisub yoonu murit la bis boo xam ne bisub jaayante la na sahaaba yi doon def ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis la boo xam ne yeesalaat pas-pas ci sëriñ tubaa xaadimu rasul la bis boobu mooy ban mooy bis ba jàmbaari lislaam ja murit saarix ba toogoon ba mu yàgg mu ne amul menn at muñ war a jénnalati ci jox sëriñ tubaa xaadim rasul addiya ndax ñun saa yuñ noppee liggéeyal sëriñ tubaa ñoo ngi mbaab yi ci mbedd mi ñooyam bis boo kooku mooy kan mooy sëriñ Moodu ma doon taawub cheikh Mahamadul Mamoun ma njëkk a wuutu cheikh Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta ka njëkk a jaayanteeg Serigne Touba Serigne Moussa Ka waxoon na ko yaa jëkk a fab say mbir ci seenu askan jébbal Serigne Touba nuroowul ak kenn. bis boobu Serigne Modou Rokhaya tànnoon ko le 15 janvier 1983 ren jii di ñeen fukki at ci bi nga xam ne tàmbali nañ addiyee Daaru Salaam ji di ko jox ki fi nekkal Serigne tubaa at mu jot kon damay wax ne addiyee ji mat na waxambaane sëkk waaye bu doon nitu yàlla it cër bu mu war a am ci diggam ak boromam jot na. loolu moo tax ñu toog ci kanam jaar jàmbaar ji di murid saadix di Serigne Cheikh Anta Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ngir waajal bis boobu mu war a nekk le 6 janvier 2024 Serigne Modou nag waxoon na ne ku dugg ci am at addiya song la nga daan ko lu la songati ci at ma nga daan ko waaye ku dugg ci am at nag addiya daan la lu la songati ci at ma daan la yàlla nañu yàlla dimbale bañ mën a daan addiya ji moo tax ñu ngi toog ak fédération bi nga xam ne mooy xidmatul xadim lëkkale mbooleem daayira Serigne Modou Rokhaya yëpp waaye dend nag ak mbooleem seex si nga xam ne ñoo jaayante ak sëriñ bi ànd ak ay rakki sëriñ bi ñuy fab sunu kàddu di ko jox sëriñ Mbacke maddina mi nga xam ne mooy wax ci turu mbooleem njabootu sëriñ Modou Rokhaya mi nga xam ne jii sëriñ Cheikh Anta moo ne ci bopp bi di seen di leen soññi su noppee danañ jox kaddu gi sëriñ Cheikh Diwane Sylla mi wax ci turu sëriñ Alhaji Sylla Njalab mi nga xam ne moo mag ci seex si di seen jëwriñ mu soññi mbooleem seex yi su noppee danañ jox sëriñ Modou Mamoun Diagne mi nga xam ne mooy wax ci turu bis bi nag wàllu njàngum alxuraan mi ak la ci aju su noppee ñu jox Serigne Dex Diwane Sylla secretaire sénéral bu fédération Xidmatul Xadim mu soññi mbooleem daayira yëpp su noppee ñu jox Serigne Makhtar wadd mi nga xam ne mooy wax ci turu turandooy Serigne Modou Roqe yi su noppee Serigne Modou Mamoun Diagne mi jiite wàllu organisation yi danañ yëkkati kàddu yi kon ñun ñëpp ñu maa si déglu Serigne Mbacke Madina moom Serigne Modou Roqe. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare. tey ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko eh, di ñaanal Cheikh Abou Mouhamad eh, moom it sunu borom yàggal ko fi te wéral ko eh, di ñaanal sunu kilifa gi toog sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba lim yéene liggéeyal sëñ Modou Rokhaya yéene koo liggéeyal sëñ Modou Mamoun yéene koo liggéeyal sëñ Gaawaan sunu borom defal ko ci lu kawe njottam ñu ngi wax ci kàddug sëriñ bi sëriñ bi di leen yëgal addiya yi nga xam ne moom lañ daa woote at mu nekk di ko jébbal sëriñ Touba. Euh, sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo euh, mu ngi ci mi ngi leen di woo tamit ci bis bi nga xam ne euh, da ci daa fàttaliku waajuram mu tedd ba di ko ci ñaanal sunu borom doolu koy xéewar ak i leer mi ngi ciy woo mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal askanu maam maaram yëpp mi ngi leen ciy woo sëriñ bi nee na mi ngi soññ rakk boppam yi mu bokkal sëriñ Modou Rokhaya te sëriñ Modou maamu nekk ci bopp bi soxna yi itam mi ngi soññ ñëpp soxna ami gaawaan ak soxna Mbàkke ak njaboot sëriñ Modou Rokhaya jigéen gi yëpp mi ngi woo ñi nga xam ne ñoom la bokkal Maam Mor Anta ñu ngi leen ciy woo waaye buntu kër Serigne Touba itam euh, li dale ci Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada yëpp mu ngi leen ci woo waaye fàttewut tamit ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ gaawaan euh, la ko dale ci euh, buntu kër Serigne Modou Mamoun yëpp Serigne Sidi ba ci kër sëñ Abo waaye tamit mi ngi woo mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal njabootu sëñ gaawaan gi la ko dale ci alaaj sëñ Takko ba ci sëñ Abdou Góora waaye mu ngi woo tamit bokki boppam yi muy njabootu sëriñ Afia Euh, sëriñ sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Afiya ak njabootu sëriñ Afiya yëpp sëriñ Saalihu Mbàkke moom sëriñ Afiya ak sëriñ ak sëriñ Moustapha Lakaram ak sëriñ Abdul Baaxi nee na moo ngi ciy woo bokk yëpp ci bis bi nga xam ne euh, ci la ñuy dajale addee yi waaye bis bi nga xam ne ci lay fàttaliku waajur mu tedd ba ñu ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon sëriñ Fallou ni mu ko waxee kàddu yi ni yëkkati nin ko baaxoo yëkkati di soññu jànkati alxuraan yi yi nga xam ne ñoom ñoo daan jiitu ci bis bi tàmbale ko ci daaru salaam gii kii daaray sëriñ Mam Mor daaray sëriñ As Mor Dia daaray sëriñ Basiirou Sakho daaray sëriñ Balla Gaye ak mboolem daara yi nga xam ne ñoo ne fii ci Daaru Salaam ak njaareem sëriñ Cheikh Abdou Dieng sëriñ Abdoulahat Cissé moom sëriñ Mor Mbaye Cissé daarul Muxti duñ leen fàtte waa kër sëriñ Abdourahmane daanoon sonn lool ci njàngum alxuraan bi sëriñ baa ngi leen koy fàttali ak boofeel ak ndilliki ak sëriñ Modou Mamoun Diagne mi ak mbooleem daara joo xam ne tuddun la rek na ci daan jàppe sëriñ bi nee na mi ngi la koy fàttali nga jàppe ci noonu ndax loolu moo war a jiitu ci bis bi ginnaaw ba loolu jàllee nag ñuy yëkkati suñuy kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sunu waajur di sunu kilifa sëriñ Alhaaji Modou si la moom sëriñ Masilla Ndaak sëriñ bi jokko ndigal ngir mu soñu mbooleem seex si nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam ngir ñu fàttalikuwaat bis bii bu baax a baax te soññu nee na mi ngi soññu boppam di leen soññu di leen fàttali bii muy bisu àddi yi ndax am murit kat ni ko sëriñ Fàllu waxee léegi ab sartu murit dafa bokk ci addiya addiya dafay loo xam ne lu am solo la ni nga ko waxee sëriñ Modou Rokhaya daana ko wax saa bu daanee addiya ji rek lu ñu song daanu ko kon nen fas yéene daan addiya ji te kenn ba ñu cee jiitu kenn ba ñu cee man lu ñu defan rek nee na mi ngi tàmbalee ci boppam kenn ku ne nga ful ko bu baax a baax ba mu yokk ba yokk gi moom wér lool fii ci kër gi kon daal mu ngi soññ boppam di leen soññ ñu góorgóorlu ci bu baax a baax bàyyiwut benn seex boo xamante ne bi yaa ngi ci ginnaaw sëriñ bu baax a baax kàddu yi nag lu ci dëng rek ñu jéggal nu ko waaye li leen uh, li ma axaana moom la mënaan a wax bu toogoon fii man du ko mën a jotal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ko ñuy jël suñu kàddu uh, ginnaaw bala ñuy wax si turu turandoo yi ñu wax si kàddu Baye Serigne Wade mi nga xamante ni uh, fii dañ ko fi daan gis mu fi toog bu ñuy jotaay bii bu amee toogu fi nag mu mel ni ak wér dem moo ko mayul. di jot di jël kaddu turandoo yi nga xamante ni dañ leen a duppee Serigne Mouhamadou Roqeya Euh, jëwriñ ja di Baye Modou Mbacke Dioum ak magum magum taale bi mi fi toog nii Baye Modou Mbacke Gom ñu wax seen tur ak mboolem turandoo Serigne Modou Rokhaya yëpp di wax ni bis bii nga xamante ni moom la ñuy màggal Serigne Modou Rokhaya te mu sosoon ko di addiyee Daaru Salaam euh, ñun turandoo yi nag kenn wooyu ñu see jiitu ñun ñoo ko moom ku ñëw dañ si war a fekk ku dem bàyyi ñu si kon day mel ne daayira boobu boo boole na képp koo xamante ni ab jullit nga képp koo xam ne ab nga di wax ni rek ku si bëgg a bokk euh, mën ngaa woote si numéro yi di 77 423 90 99 47 wala 77 808 44 00 wala 77 690 689 63 63. il Serigne Touba Xaadimu Rasuul loolu lañ leen di fàttali di di leen ci woowaat ñu ñëw nu raw nañu daan ñëwee woote ñaareel ba moo di fàttaliku jàmbaar ji nga xam ne si moo taxawaleen bis bi muy Serigne Mouhamadou Rokhaya Mbacké. ñu di ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal te ñaan nag dara jiituwu ci jàngal xuraan jàngi xasiida def listixfaar salatu ala nabi di ñaan nag mbooleem ku bokk ci fédération bi foo mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi lay woo nga ñëw indi addiya na mu gën a baaxe te jàngi alxuraan def ay salatu ala nabi jàngi xasiida ñaanal ko sëriñ Modou Rokhaya Mbacké may wax ci wàllu organisation màggal sëñ Modou Rokhaya ndax màggal gi eh, buñ koy wax itam mën naa li ci jiitu mooy organisation. ñuy wax ne daayira bu nekk su màggal desee ñaari fan dayre bu nekk na yebal ñeenti membre ñu ñëw teesu fii ci liggéey bi waaw muy la quatre membre daayira bu nekk na nga yebal ñeenti doomu aadama ñu ñëw taxaw fii ci liggéey bi jàpp ci ndax liggéey bi eh, mën nañ ko bëggee ahlu badar nag moo koy wax yéen waxaale ma leen. yéen yéen a fi njëkk yéen a fi mujj na ngeen ko daan defee rek bu leen ci kenn man kenn daaw leen ci mën itam kon ñu soññ ñëpp. ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Anta Mbacke Serigne Modou Rokhaya ci woote bu mag bii nga xam ne itam mi ngi koy fàttali taalibe yi te it at mu jot itam mu ci soññee ngir daayira yi am ci seen taxawaayu bopp boo xam ne kenn du ko nattable loolu nag yomb na. ndax daayira bu xam la nga defoon daaw boo fas nee def lu ko ëpp ren rek hmm. yaa ngi ci kaw yoon kon sëriñ bi nee na loolu lay soññee mooy ndigal li mu joxe itam daayira nag lim bi aju ci kër gi moom lañ bëgg a fàttali daayira daaru salaam daayira mexe daayira Touba Madiana daayira Touba Okas daayira maam Cheikh Anta bu Jurbel daayira Kaolack daayira Ndindi daayira Grand Dakar daayira Gaawaan Mbàkke daayira Longoor daayira sëñ Bat Sung Refaan daayira Bari Ndondol daayira Sébikotaan daayira Mbuur daayira Malika daayira Pir daayira Njéemeen Njéemeen Louga daayira Soxna Ami Ndiaye daayira sëñ Mor Sall Jurbel daayira Kadd daayira Ngay Ngay daayira Mbomboy daayira Tongol daayira Daaru Tawfeex daayira Njalbeer daayira daaru daaru kibar yi yooyu ñooy daayira yi nga xam ne ñoo ne ci biir réew mi waaye am na ay daayira itam ñu ne ci bitim réew sëriñ baa ngi leen di soññ ñoom tam di leen gën a soññ ci ak góorgóorlu nañ ko daan defee muy daayira Argentine daayira Italie daayira Espagne daayira France daayira Amérique ak daayira Allemagne kon noonu ñu ko waxoon rek daayira bu ci nekk na nga góorgóorlu ci bis bi te xam ne mooy suñu bis ndax fàttaliku sëriñ Modou Rokhaya doy na ci ñun ab liggéey waaye joxe addiye nam ko nam ko sose woon nam ko nam ko indiwaate woon tam ba ñëpp so euh, ànd ci loolu itam suñu warteef la te sëñ ba soññ nañu ci kon daayira fu daayira man nekk te dégg sa tur ñu tudd ko fii ñu aju ca daayira boobu nañ gën a góorgóorlu yokk seen jom ñu def benn parce que bu ñu àggee ca bis ba man nañ daan mane salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi soññee yi nga xam ne bàyyikoo na ci njaboot gi waaye ci tur soxna Ndey Jóob mi nga xamante ne bi mooy jëwriñu soxna Ami Gaawaan nee na mi ngi soññ mboolem jigéen ñi bokk ci daayira yi ak fu ñu mën a nekk waaye di soññ it njabootu sëñ Modou Rokhaya bopp seen bopp gi di xam ne liggéey bi moom ñëpp lépp ñoom la war ñoom kon nee na ajjuma képp ku mën a fanaan si na nga fanaan si ndax dafa bëgg liggéey bi teel te jaar aw yoon sëriñ bi nag nee na liggéey baa ngi noonu daaw yóbbu woon nañ 365 millions te 365 millions yi ñu jox Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha kenn mënu ci buntu kër Serigne Modou Rokhaya kon nag nee na lam tegoon ci loxol Serigne Abo Mohamed daaw way juram di sëriñam mi ngi ñaan yàlla ngeen jàpp ci ba mën a joxewaat ñaaram ndax ab murit kat wërta dellu ginnaaw tànk kanam rek la war a am waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu arani min al amradi man ankara bi i'tiradi